taxawal na plateforme bi ngir structure yu mel ni dr fpt FONGIP daal di eh, gestu askan wi nga xamante ne suñu kilifa yi fi nekk eh, daan nañ leen bépp opportunité eh, bi fi ñëw seen biir rek lañ ko yemale te ñi nga xamante ne ñoo di. les ayants droit mosu ci bénéficié wu. ci loolu nag euh, ñu ngi euh, dankafu président de la république euh, ak gouvernement ñu daal di gëstu bu baax ñi nga xamante ne ñoo nekk askan wi.